ministère de la santé exigé muy lan distanciation bi limiter nombre de places yi ñetti di takk masque alors que ñu daal di dem ay orchestre yu restreint yoo xamante ni dinañ mën a toog pour mën a continuer l' animation et que nit yi di mën di continuer di économiquement après du secouer pays bi mais dañ gis ni dañ dem ba ci biir gouverneur bi décret bi mu jël yamul rek ci arrêté rassemblement mais dafa interdire toute activité culturelle euh, ci territoire Dakar bi nga xamante ni tey loolu je pense euh, loo xamante ni tey daf ñu tere loo xamante ni moom moomu ko. parce que loolu ci suñu droit la bokk. ci seen droit la bokk mu nekkoon bi di defe naa ñu